ay nit Khalifa Sall devant Malick Gakou Khalifa Sall devant Barthélémy Diaz Khalifa Sall devant Kalidou Niass Khalifa Khalifa Sall devant docteur Diallo mu ne ma Bougane lii danañu ko lijjanti après on va régler ça ma ne ko d'accord kon maa ngi leen di bàyyi ngeen dellu ci salle bi man ma dem mu ne ma déedéet dellu si ci salle bi ma ne ko monsieur le maire mënuma dellu si ci salle bi parce que li ngeen fa def man ànduma ci ma ne ko ok kon maa ngi lay wax ci kanam kanamu Barthélemy mii ak kanamu Malick Gakou ak ñi ma àndaloon maa ngi delluwaat ci saal bi mais bu dee parole bu ngeen ma ko joxee du ma wax bu dee signé bu may signé je vais signer sous réserve alors grande a ma surprise aujourd'hui en réunion quand Khalifa Sall me rétorque Bougane signé ak réserve amul da ngay yaa ngi ci biir wa illaa signé wuloo ma jàpp ne xëy na sëtam na doon waxal parce que signature sous réserve bu amatul xaw ma lan moo am ci réew may xamal rek askan ne leen lenn dong moo ma yitteel man Bougane Gueye bu ma xëyee ci lay dox bu ma yeewoo moom lay yeewoo ba ba may tëdd lépp loo xam ne mun naa daaneel nguuru Macky jële fi Benno Bokk Yaakaar ci loolu laa nekk waaye nag du ma nangu kenn di ma dëggaay du ma nangu kenn di ma foowe parce que mun na maa tuuti mun naa nekk xale mais du ma nangu ku ma yàpp durant rencontre de ce matin moom Khalifa Sall parce que moom laay wax parce que bari na fa ñoo xam ne yàlla ma yàlla bal ay yóbbaale lañu ku ñuy diri nag sañ naa bañ a taamu fañ koy jaarale mais man bokkuma ci ñu ñuy diri ñii ma àndal ay gor la Khalifa Sall m'a intimé l'ordre Bougane il faut retirer tes réserves ma ne ko monsieur le maire du ma retirer réserve bi parce que dama am ay nit ñu ma nawloo jox ma seen kàddu ma wax fi li ma xalaat mu nekk réserve kon explication yii nga ma jox man damay delluwaat ca ñoom mooy la grande coalition gëm sa bopp wax leen li nga ma wax alors li ñu ma wax lenn la couleur yi dafa bari waaye parti yëpp booy xool verte moom moom mooy seen mooy seen couleur ma ne ko verte rek amu fa vert la weex la ak rouge mu ne ma du rouge rose la ma ne ko du rose magenta pou <laughs> pour parler en langage parce que lu ma xam la c'est quand même mon domaine ma ne ko mage la magenta que composante boobu moom la jël boo ko tiiree boo ratee rouge nga jëm et je sais que c'est fait à dessein moom Khalifa Sall mu ne du ñu continuer di discuter ci loolu kon Bougane jàppal ne mësuloo signé man ne ko kon jàppal ne mësuma signé les discussions ku ne joxe na fa xalaatam mais on se rend compte que c'était parce que nit ñi wala ñenn ñi préparé woon nañu leen pour loolu man nag comme duma politicien professionnel comme ñoom man waajuma wàccaalewuma waajuma lenn parce que jàpp naa ne ay gor ak ay nit ñoo xam ne ay nawle lañu ñoom laa am leen parce que benn combat dong moo war a nekk suñu kanam naka lañu mun a def ba jële fi Macky Sall ñi mu àndal ak coalition mais nag la ma waxoon tey laa koy waxaat jàpp naa ne coalition coalition moo koy gañe waaye coalition bu fekkee ne da ko war a gañe dafay ànd ak ay nit ñoo xam ne dañuy yaatu dënn parce que boo nanguwul bàyyi bëgg jël lépp yëf bi du sotti et am na ku ma ko wax ci kilifa yi sànq ku bàyyiwul sa xalaat ci couleur ak logo bu ñu yeggee ci investiture du la bàyyi lenn comme ñun ñun réew mii dañu fay liggéey tey gëm sa bopp est devenu une réalité politique mënoo tudd ñaari opposant ci réew mii ñu sonal Macky Sall te boole ci Bougane gi te duma nelawuma maa ngi tibb tànk maa ngi xolli bopp lu nekk danaa ko def benn objectif dong laa am que Macky Sall et ses dégage loolu nag dañu soxla ay nit ñoo xam ne ay démocrate lañ c'est dommage bi ma ñëwee waxtaan ak waa grande coalition gëm sa bopp ñoom ñëpp ils sont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 ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp yor nañu suñuy wagg bu ñu sa desee ñu it ñu continuer ak suñuy mbagg parce que nag gëm nañu ne bu ñu yeggee ci 23 janvier 2022 sénégalais yi danañu bàyyi xel yéene ak xalaat bi ñu indi ci collectivité locale